jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su mbokk yi ñu ngi fii ci Adrien Senghor sum production moo ñu fi woo mise bi un million la li traditionnel la waa wasaare làmb ni leen ko defalee démb defalee leen ko bërki démb defaatal leen ko bërki démb tey ñëwaatal nañ leen fii ci Adrien Senghor mbaa bég ngeen démb nañ leen wan ci caatu yaraax wasaare làmb sëñ Baskaay laay noo def. maa ngi fi rek grand. yaa ngi ci jàpp baax a baax. tur bi nan la. El Hadj Modou Faye. El Hadj Modou waaw ñu may woowee Konte Njongoloor. ñu may woowee. Konte Njongoloor. commissaire Konte Konte. Konte waaw. tey nga ñëw ci bis bi. waaw lan nga lan nga maanaam lan mooy ci bis bi. ci biir. ci bis bi tey lan mooy ci tey. bés bi tey dañ ci kontaan di la si bu baax grand kontaan ci yow eh, di leen di gërëm bu baax a baax ci li di def li ngeen def kontaan nañ ci te daanaka yaanakaar naa ne ñaari fan ñetti fan laa gisante ak yow foofu ngeen ñëwoon te régal gi ma gis liggéey bu rafet ngeen defoon ko ci liggéey bi kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax a baax Ablaye nag dafa nekk suñu waay nekk suñu xarit nekk suñu lépp nekk nit ku baax bu amee bés ñun dañuy ñëw ci bésam yaa ngi dégg ñëw ci bésam jàpp ci parce que dafa am staff bu ñu nekk mooy staff suñu production bi ngay gis nii loolu moo woon staff bi ngay gis nii xam nga bokk maanaam ci ñox boo sécurité yëpp da ngay gis ñu yor bii comprendre nga waaw ñu kontaan ci bés bi nag bu baax a baax di gërëm ñëpp nag di gërëm ñi nga xam ne nag ñoo paas dugg si ñi nga xam dañoo bàyyi seen soxla encore ñëw yéen tamit ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen di sant kontaan naa nga ci yow kontaan naa encore ci sama waaj yi kii sama waay la sama xarit la keroog bu ngeen ñëwee adressé ko ñu leen di tere man maa jël intervention pour ngeen dugg kon kontaan naa ci yéen bu baax a baax gars yi dañ leen xam rek mais bu leen xamoon dañ leen di bàyyi ànd naa ak yéen te kontaan naa ci yéen waaw waaw samedi yow attention attention c'est la famille. jawriñ siyaar naa la. ça ñu ngi dolli fii. waaye yaa ngi am jàmm. ça va sant yàlla bu baax. nekkoon liggéey fi ci bis ñun ah, xanaa di contrôler billet yi rek waaw di contrôler ñuy dugg ak ñu génn ko waaw. billet yi ñaata la. billet yi 2500. kaw ci kaw 2000. ay yomb na de. ah neex na neex na moom billet yi moom dañ ko yombale quoi vraiment neex na trop. Adama. Adama looy def fii. Eh, doomu ne xew la muy sa production ku ma xam-xam nga sa production nga ma xamee man maa gi nii on est là. su sa 100 muy suma xarit di suma doomu ndey maa ngi ñoom Bakar ñii boo gisee koo gis rek yàlla mooy def ci ne am ko jiitu su production kooku suma doomu ndey ñëpp ko xam ak man muy suma doom ndax tuddee naa ko doom yéen nag kenn du ndax yéen yéen a ngi fu ne fu ngeen yaakaar fa dem rek. nekk la ñoo xam ne da ngeen taamu événement déedéet événement nu mu dawee rek yéen a nga fa ci kaw ci kanam kontaan naa ci yow bu baax a baax xale mooy liggéey te gis naa li ngay liggéey yow gis naa force bi ngay demee kontaan naa ak sa Adama Diouf kontaan naa su ma xool sedd na ok merci beaucoup dagg leen ci biir gis affaire bi sa doomu baay la Diouf Basirou Diouf ah Basirou Diouf sama doomu baay bu reñilan bañ faali bu regeje pal geje jam faro ka to bay masida te geje fuga fugel bug ne wernam wala bu kar yak fa keesin <laughs> bari na ay Diouf yoo xam ne xam naa du ñuy tagee duma kewen nag mais xam naa du ñuy tagee <laughs> bàkk na la jox naa ko 2000 après nga delloo ma bàkk na la ma jox ko 2000 Doudou Sané laa gis champion yi ñëw Doudou Sané mel ni naan ko xadafi ma nga noonu di dugg si Bas leket la yor ba am na lu mu def cey Doudou Sané leket ba lu mu def suukar ak guro gas Doudou benn suukar benn gros ak <laughs> mooy Xadafi gasaat na moo koy topp ba mu sës dugalaat na beneen moom Doudou Sané <laughs> dem na ci digg géew ba yàlla bu baax. tey journée bi loo yëg. sant yàlla rek sant yàlla bu wér alhamdulilah di ñaan rek ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Adrien euh, Senghor sum saa yu fi tëggee rek amateur yëpp xam ne sum organisé na lan mooy sa secret. sama secret bi mooy avant promoteur bi amateur laa comme ñoom amul fu ma lamb yóbbu wut maak amateur yi xamante nañ fu lamb tëgg. Dakar ak àll bee ci yem wàllum promoteur bi daf ñoo dab mais ñun ay amateur lañ considéré wuñ bopp comme ay promoteur sax ay amateur lañ comme tout le monde kon lamb ji su lamb sum production lamb amateur yi la loolu rek la leneen la merci maam góor góor production maa lay ziar. delloo ma gis la ci bu bis boo xamante ni sum production moo ko organisé seen diggante yéen ñaar lan la. suñu production mooy góor production beneen staff bi la man maay Ablaye sama doomu ndey la boo dee góor production à cause de Ablaye Diop la lépp moom la suñu production moo jur góor production ñooy def lañ ñooy wax leen staff sax benn la lépp benn la. maa moom la sama lamb la. li ma la gis ba la sama maam yi ko jox rek. sama maam yee ma ko ak ak maamu Ablaye Diop ak maamu Adama Diouf yi. doo ma ko may. ah na la ko jox. jërëjëf. tey kaa bi dina critique ma fi gis <laughs> tey adresse Senghor dana garaaw lool sax. Jonn dugg si na Ngel Jonn dugg si na ey bas Kaaba gën naa critique at Ngel Jonn dugg si na ey lam Ngel Jonn dugg si na amateur yëpp jóg lu muy gën di dem muy gën di critique Gaskel Diambar mbër siyaar naa la delloo naa la siyaar sant yàlla bu baax maa ngi si jàmm baax a nga ñëw ci compétition bi ban yëg-yëg nga am waaw ñëw daak suñu wërsëg rek waaw moom xam lamb rek lañ fi am moo tax chaque dimanche dañuy dem compétir rek waaw bi nga ñëwee ci compétition yi ba tey ñaata compétition nga jël Gaskel non man li ma li ma jël si compétition su ma toogee fi di la ko limal duñ fi jóge mooy loolu. mais tey champion laa fi gis ne tey dafa mel ni compétition bi gën a grave ci compétition. kon man du ma champion. non boo déggee ma wax champion maanaam ñi ma fi gis ñëpp ay champion ay champion lañu. ndax bi nga ñëwee fii gis naa ni nga def Boy Faye gis naa ni nga def Libidor tey ma ñëw gisaat fi keneen koo xamante ni ku ci mel ni Caaka Faye fi gis naa fi nu mu tuddati na léegi. déggoo li ma la wax man. sama yoon nekkul ci kenn ku ma dajel dinaa jëflanteeg yow li ma war a jëflanteeg yow ba mu saf sap. dina mel ni miin nañ ah daa ne xamante ngeen bu baax loolu kay yéen xamul waaye ñun xam nañ. na ok ci kanam waaw. Xadaafi Xadaafi Xadaafi Xadaafi Xadaafi. mbër ziar naa la. waaw ah, delloo ziar. naka it normal. ah tay de bett nañu ba. gisuma la gisuma lan la loo xaw. ah mbër gis nga rek non bàyyi li ngay def nag. war naa la ba sonn billaahi mais amul problème suñu fallu rek amul benn problème. non yow dama war a ñëw ñu yaatal ko mais dafa mel ni affaire yi sëñ Bass mooy loolu. amul problème noonu lay demee. tey nga ñëw ci compétition ban yëg-yëg nga am. waaw kontaan ci rek comme que retour ñëwaat nañu si àll lamb ji ñoo ngi ñoo comme dab rek comme dab daal. ñoo ngi kontaan si ñëpp et eh, tamit di jaajëfal fans yi yëpp di kontaan da ngaa nax gars yi ndax gars yi yaakaaruñ la woon nga yegg si. non gis nga daa mel ni damaa nax gars yi fan yii passé damaa amoon tuuti blessure quoi moo taxoon ma posé woon mais gis nga suñu borom def na xéewal bi affaire bi saafara woon na quoi instant yi ñu dikkaat ci rek. mais suñu wërsëg waaye wala lépp tawfee nag. alhamdulilah waaw nañu xaar moo ñëw wala Xadafi. Doudou Xadafi boo ci wax baax na ñu loolu. tey ban moo ci ñëw. ah tey ban moo ñëw. boo xalaat rek. keroog moom bi ma gis. arène nationale ban moo nekk sa xel. bi ma gis arène nationale. Ah. bu weex ba. Ah. boobu xadafi ah, la tey nag <laughs> boo xalaat sa rek moo ñëw quoi. waaw Doudou Sané xadafi kan moo ci gën a ñàng. ah ndax boo ñëwee ci lamb simple bi Doudou Sané la. mais boo demee ci bëre dóor bi xadafi la mais ñoom ñaar kan moo ci gën a weex. non c'est que daa dem ba fës daa dem ba fës ndaxte duusaane lañ ma woowee du duusaane laa tudd quoi daa daa dem ba fës xadaf suul xadafi bi mais xadafi depuis le début xadafi lañ ma woowee quoi affaire yooyu ñaari tur la rek yoo xam ne maa. <laughs> jaajëf ba waaw kontaan ci ay bi compétition. ay bii compétition tey booy fay na <laughs> fëgg na ngemb la eh, kor siragoog leena xool leen Basiru bas kor siragoog siraay soxla lamb léegi kenn du ko wax booy fay du gisee ñu la sira eh, keroog de moo ko gaal gi moo ko jël keroog waaw waaw kor sirangoog nee na dina rendi caaka fay la mujjee daan terrain gaal gi tey dugg si waat na janam ngel féete càmmoñ Gaskel féete leen di joor da ngay lewaatoo cey lamb ee eh, Doudou Sané ak Boy Faye ña ci wàllu wee jël na ko caaka jël na tànk ba Gaskel rëcc taajek champion ka doki damene ndiki to a kondena mbare ley Omar Sarr a moƴo arde na tas yakar fayi buleer an a ndef champion mat yakoy ndik waaga a dokiidaga mene le benjamin de des a décoré a yaam Josephine Bassa o cigenes ne un le benjamin des promoteurs c'est le benjamin de promoteur alabajina li rafet na ndeysaan abiti Faas am na ñaar am benn Kaana boo amaatee beneen ñàkk daw na jëli ko daw na attaqué ko jàpp na suñu kaw la ñu jëm wala déet Kaana Baas ngel jonn ko bañ na plaqué na ko mu bañ ngel jonn Kaana Baas ngel na Kaana bañ na génnee na ko ah, waaw Ngel gaañ na ko Ngel gaañ na Doudou Sané bëre woon nañ ci àll bi booy fay Doudou fa na daan ko revanche lay jël tey dina leer wala déet booy fay mbot na ko ndomba hee booy fay wër na Doudou Sané booy fay wër ko ndomba Doudou Sané Boy Faye Boy Faye da doon jël si revanche revanche dina leer eh Boy Faye Boy Faye lu mu nar Boy Faye Doudou Sané Boy Faye war na ko ndomba trois appuis Boy Faye war def na trois <laughs> ay Doudou Sané mbaa ci génn ee eh, Kor Sira wër na ko ndomba Doudou Sané mbaa ci génn Boy Faye wër na ndomba Boy Faye wër na ko ndomba fu muy teg tànk bi Boy liggéey nii ee eh, làmb ji Doudou Sané Boy Faye Sané mujj ci koom Boy Faye war na nar Faye ma mbër boo ko waree ndomba koy déglu da koo bëgg a bureet li la bëgg Doudou Sané rëcc la bëgg bu yàggee avantage Doudou Sané la bu yàggee avantage la Boy Faye Doudou Sané waaw ah, Boy Faye fu muy dugal loxo bi nii <laughs> ay bii làmb Boy Faye Doudou Sané Boy ba Doudou Sané du daanu na Boy Faye daan na Doudou Sané Boy Faye daan na Doudou Sané nee na ko ñibbil nee na ko ñibbil nee ko ñibbil nee na ko ñibbil dama ñemewu la wax ki jël rek waaye kon maam fitne la diwa koy jël sañ bas Caaka Fay jàpp na ki ma yaakaar ni moo koy jël feeñ na de Caaka daan na Caaka Fay bas Diguel Dione Thiaka Faye arbitre bi ku ne ngàdd sa morom Thiaka ngay léemu Diguel Dione na ngay léemu Diguel moo leen won ginnaaw Thiaka ngeen lool Thiaka Diguel Dione Thiaka Diguel Dione Boy Faye éliminer léegi Doudou Sané Caaka Faye éliminer léegi ndeysaan champion yu mag feeñ nañ ci compétition bi jël na ko Ngel Jonn jël na ko Caaka daan na ko wala di Caaka daan na Ngel Jonn Caaka Faye daan na Ngel Jonn Caaka Faye daan na Ngel Jon bi sifle na Boy Faye Libidor bu Ngoundiane Boy Faye moo leen féete ndijoor Libidor moo leen féete càmmoñ ña ngay na soobu Boy Faye braqué na ko Boy Faye braqué na ko Libidor Boy Faye Boy Faye ndànk lu mu bëgg da koo bëgg a forcer li mu door dina ko daan wala déet daanu ko Boy Faye lu muy bëree nii eh topp na public ga Boy Faye ngay door njëkk na ko lu mu doole da koy daan wala déet li door doo ci doo ci génn door waaw doo ci génn Boy Faye daan na ko. doo ci génn ci génn ci génn daan na ko Thiaka Faye daan na Boy Faye Thiaka éliminé na Boy Faye demi-finale Thiaka Faye bo éliminé na Boy Faye Modou Ngom Modou ah, tay loo indi waaw indi lu bari rek fas yéene trompé yi waaw champion yaa ngi dem yaa ngi daan daanaane rek non ma rek dañ koo liggéey dañ koo liggéey bilaahi ñuy door a ñëw fii nii bi mooy sa première fois. waaw ah, bii mooy sama première fois. ah Modou Faye mi bàyyi leen ko xel. waaw li nga écrir nga nekk. écrir Ngoundiane. ah Ngoundiane nga ne. waaw jaajëf. yu siyaar. doom ndey waaw wasaare. dëgg naa leen maa ngi yéen depuis keroog gaal gi ak tey fii waaw maa ngi a demi final léegi nii maa ngi ñëw gis na ci compétition bi mais yaay wane sa bopp waaw mooy noonu la ay xale leen toll si liggéey am suñu doole dañuy ñëw fii wane ko waaw ay sportif leen rek xam nga dañuy ñëw fii wane ko maa ngi sant na sama gars yi ma àndal ñoom min kod ñoom jaara fay ñoom ay taxaw dama jàppale affaire dafa métti dem maa ngi jóge ba gànjaay ñu xeex ma tey ma xëy ma ñëwaat fii si guddi gi laa toog ñëwaat fii kon yàlla day wan ni wërsëg yi fépp kase eh, di leen sant di leen gërëm waaw du yomb nag waaw jaago sa siyaar naa la Thiaka naka yi lamb lamb ndeke lamb sans kese la Boy Faye na la final tey nga jàppaat ko éliminé ko daan nga ko yoon mu daal la benn waaw waaw lamb la rek comme li ma la waxoon amul men war sek la rek waaw moom dafa mel ni soo daanee day kontaan yow boo ko bu daanee nga kontaan. parce que ma magam moo tax ma doon mbër magam moo tax ma nekk mbor moom suma doomu ndey la combine moo amul sens mais lambu doxul suñu diggante du suma adversaire waaw. mais combine moo amul sens. voilà loolu la quoi jaajëf waaw. jaajëf ko Ngom ak Basaka Basaka moo ngemboo ngembul Lagos bi Modou Ngom moo ngem moo ngem lu ñuul li ña ngay lewaatoo ñoom ñaari xale yi waaye dara amagul lii mooy demi-finale bi surprise bu rey am na tey lamb joo xamante ni ngel jonn toog na lamb joo xamante ni booy fay toog na lamb joo xamante ni duudu saane toog na lamb joo xamante ni gel ngel jonn bu ah, libidoor bu ngunjaan toog na ci daw na basaka Bazaka moo ngemb Bazaka zongale nañ ko ba ci kaw dóor ci suuf xale ba wane na boppam dem na final. mbër siyaar naa la. waaye delloo siyaar gaynde. mbër ku la waxoon ni tey di nga dugg ci làmb fekk fi Doudou Sané gis fi Boy fay gis fi ñëpp nga finalu ci Adrien Senghor dulu lu yomb de. non du yomb mais gëm suñu bopp danoo yàgg ci làmb ji yàgg nañu ñëw di daanu premier tour deuxième tour affaire yooyu noonu. mais bu ñu ñëwee dem demi final dañuy sant yàlla waaw lii dara sant yàlla la rek waaw noonu la dem waaw. final yi ñaar ñi dem final kan nga ci gën a bëgg. non ku daan baax na man damay damay damay damay tourner rek waaw bul bi tourner rek ku ñëw baax na bilaay amul ma benn problème ku ñëw rek baax na. tur bi naan la. Boy Diouf. ban écurie nga ne. écurie Ndakaaru. écurie Ndakaaru nga Ndakaaru. yaa ngi daan yàgg ñëw fii. yàgg naa ñëw fi ñaata combat nga am ci bëre door. bëre door am naa deux combats deux waaw ah, waaw. ah booy Diouf Samb le 8 septembre laa mujjee bëre. waaw. koo mujjee bëre. kii booy Viras. olympique de Ngor ah waaw waaw. noonu la waaw. daa rafet na waaw mais waa waa Grand Dakar ñaar tali. tubaatul ñëpp nañu ma xaar. billahi maay sant gaay yi gaay yi ñoom Moussa Tinim gaay yi ma àndal noonu yaa ma gën a xam bal ba ci kanam. coo jibul waaw. Gaana Gaana. lamb daa métti ci mbir gars yi mbër yi sax ngay toog mars le 7 mars. yaakaar maa càndum de ku tëgg combat aa ah Ousseyn Ousseyn. Ousseyn production waaw. naa fa ñëw ñu waxtaan. waaw loolay yoon yoon. man yëpp samay xarit lañ. waaw dama leer barke yàlla. Bas ak Thiaka Faye Youssou Ndiaye Thiaka Faye Thiaka Faye moo la woon ginnaaw tey lam ñii seen ngemb yu Caaka Faye am nga jàkkaar lool Caaka Faye moo la woon ginnaaw ñu ngi ci demi-finale yi bi mooy bi Caaka am na ndam arbitre bi nga wax ñoom mbokk yi lii bi Soum Production moo woo fii ci Adrien Senghor diggante Caaka Fay ak booy Diouf Caaka Fay moo final woon ak Boy Fay fële ca terrain gaal gi arbitre bi sifflé na Boy Diouf ngemboo ngemb lu ñuul li ñëwal Caaka Fay Boy Diouf ña ngay lewaatoo Caaka Fay ngeen jàkkaar lool Boy Diouf moo leen wan ginnaaw Caaka Faye Boy Diouf Caaka Faye Boy Diouf da ngay lewaatoo Caaka Faye ku muy bëreel da jox cër Caaka Faye Boy Diouf lu mu nar Caaka Faye Boy Diouf ci tànk yi la bëgg a jëm est Caaka dina ko ko may Caaka fëgg na ngembali Caaka Faye Boy Diouf ay lewaatoo ba tey Caaka Fay Boy Diouf Ndiaga Faye bi a ngi naan booy Diouf taxawal Boy Diouf daa bëgg a forcer Thiaka Thiaka day dawale tànk bi Boy Diouf Thiaka mu ngi jàpp na ko Caaka jàpp na booy Diouf bal na ko plaqué na ko daan ko Caaka Faye daan na Boy Diouf Caaka Faye jël na final bi Caaka jël na final bi jërëjëf mbokk waxtaan Wassare Lamb gis ngeen lii amoon terrain Adrien Senghor dox ci diggante Caaka Fay ak Boy Diouf Caaka Fay jël na compétition bi daan Boy Diouf jël bu amul benn werante Caaka Fay nag mbër la boo xamante ni mu ngi ci compétition yi di wane boppam dimanche passé da koo ñàkk ci diggante moom Boy Fay tey amaat ko fii daan ko jël bu amul benn werante lamb noonu la compétition noonu mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du la incha allah ci beneen